là bientôt dootoo mën a réclamer euh, la fonction de président des femmes euh, PDS du département de Guédiawaye. ah bon waaw. xa fal ma. ah ana sama image xanaa yoroo ko. yor naa sa image non da ngeen def bureau parallèle mais je pense que la commission beneen bureau bi lay valider. waaw parce que borom bureau bi beneen bureau bi moo leen saf ñoo leen fa teg c'est normal. mais ñaari bureau mënul am. déet dama ne. boobu da ne ñoom ñoom commission bi ñoom la ñuy valider bureau boobu leen saf xañ na waaye man nag sama ñubbal gii bala maa ngi ko génne PDS ma naan Sall la wala euh, Amadou Bala di nga ko tàyyi. te ne euh, on me waree femme yi dañ ko bëgg ci parti bi. loolu am na moom. waaw mais damay ragal dimanche aussi euh, changement yu bari yi nga xam interview ba niir nañ teg yu ba yu bees yu bari yi nga xam ne euh, ñu ngi émerger au niveau de parti. Euh, mu répercuté wu euh, sur le vote des des délégués et que ñu évincé du du de de présidente du mouvement des ma ne man bi may nekk PDS booba aw ma responsabilité ba may nekk PDS aw ma responsabilité lu ma ci daal tegandaay la. di ko nangu lu ma ci am rek tegandaay dama ne lu ma dal lu ma am ci pedes tegandaay la ba may topp PDS di yuuxu di daw di ñàkk sama alal. bàyyi sama njaboot léser leen seenu njàng yàqu booba du ma présidente des femmes ba may doon maire de Médina Gounass pendant 12 booba national amul ci bii bi Ablaye Wade jeexalee pouvoir la ma dénk jigéen ñi damaa raamal Awa Diop yal na xippee àjjanay firdawsi damaa raamal Kumba Ba yal na xippee àjjanay firdawsi damaa raamal Aminata Tall mu di ma dégg taxul responsabilité ñàkk ko wala am ko du ma déranger d'un iota parce que man gëm naa yàlla nag fa yàlla lay defaree doomu aadama du fa yegg ba di ko yàq garab gay sax pénc law bi du ko gis ba di ko gor li ma xam te xam ko mooy Abdoulaye Wade laa bëgg Karim Wade laa bëgg PDS laa am ko sama parti politique te gis nga may mu ne politique baaxul day tàggale nit ak xaritam day tàggale nit ak doomu baayam day tàggale nit ak jarbaatam yàlla nañ ci yàlla musal. donc yow. pour des ambitions dimanche bu ñu la évincé du tax nga jóge PDS. ci nga fay gën a bokk. laa ilaha illallah man PDS laa si j'ai PDS dans le sang Ablaye Wade laa bëgg moom laa bëgg doomam laa bëgg Ablaye Wade laa xeexal ba mu am ndam ma fas yéenee ànd am ñàkk xeexal doomam ba mu am ndam sama honneur la man xam nga tax muy sama honneur dama fee nekkoon ak ay nit ay góor ak i góor ak i jigéen. ñu am fi lu ne lu ma amul ñu bàyyi ma fi dama ne déjji toog ne paanu mbalit kon damaa bëgg pouvoiru Karim Wade ma fekke ko la tête haute man fu ma neex jaar fu ma jaar ci àddina aéroport bu ma wàcc na xanaa kii du meer ware ay waay maire ware ku gore na yow amatul ci réew mi ay maire ware yaa gore loolu lay wër wëruma leneen li ci des yàlla moo ko yor